إله إلا الله
اللهم رب رزقنا ومتعنا وصلاة القائمة محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان mbokk jullit yi sunu xutba tey mooy ar rishwa mooy ger ak neexalaate xam ngeen ne ger ci àddina bi tey rawatina ci sunu réew yi daanaka mën nga ne dugg na fu ne ci kaw ba ci suuf ci ñi ñuy tuddee nitu diine ak ñi ñuy tuddee nitu àdduna te xam ngeen ne ger mahaqatun lil baraka wa muzila laha kama nara zalika wadihan fi kulli mujtama'in sarada an manhaji llahi wa shari'atihi wa hiya tusaffihu alhalim wa ta'ma aynul hakim moom ger day màbb barke bépp société boo xam ne ña ko jiite ci wàllu àdduna ak ci wàllu diine dañuy lekk ger société boobu barke dootu fa wàcc dañuy sonal seen bopp rek comme niñ ko gisee mu leer naññ feeñ foo dugg tey ci biir Sénégal lu dul lu néew ci ay bureau ñépp ay lekkkatu ger lañ ci mbedd mi ci bureau yi ci liggéeykaay yu ndaw yeeg yu mag yi illa man rahima rabbuka lu dul ku yàlla yërëm ñépp dañuy ger boo xoolee ñi taxaw ci mbedd mi ñu leen di tuddee ay alkaati nga xool gendarme xool douane xool lu nekk agent de l'état yi ci biir bureau yi nga dugg ci kër sëriñ yi ñépp lu dul ku yàlla du yërëm ñépp dañuy lekk neexal dañuy lekk ger moom ger doomu ndey tusaffihul halim fu mu fekkoon lu baax da koy yàq lu waay baax baax baax bu duggee ci ger alxuna wa taama aynul hakim day gumbaloo bëtu attekat foofu moom kenn waxatul moo tax yonent alayhi salaatu wasalaam ba muy wax attekat yi mu ne ñett la ñaar ñi safara lañ jëm yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na attakat yi ñetta lañ mu ne ñaar ñi safara lañ jëm te ku yonent ne safara nga jëm wallahi safara nga jëm te ku weddi ne ñooñu safara lañ jëm sax yow safara nga jëm ndax yonent moo ko wax te du wax lu ko neex maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonent bi nee na attakat bi xam dëgg atte fen safara la jëm attekat bi xamul dëgg gi attewul dëgg gi safara la jëm ñu ne yenent ban attekat mooy dugg àjjana mu ne mooy ki xam dëgg taxaw ci atte dëgg gi ak lu metti metti yenent bi nee na kooku dong mooy mucc sunu borom subhanahu wa taala ci sunu sharia ci islam lan mooy atte lekk ger hukmu qubulu rishwa haram bil kitaabi wal sunna wal ijma mbokk yi atte nangu ger wala lekk ko nga nekk ci barab di liggéey doo def liggéey bi mukk lu dul ñu neexal la doo ko jaarale yoon mukk lu dul ñu ger la lu dul ku ñëw rek nga fas sa kanam su la nuyoo banque dara ci loxoom rek nga doog a fecceeku nga doog a fireeku nga mel ne ku ñu coqotaan loolu rek la gaa ñi di xaar tey ci li liggéeyukaay yi waaye loolu ci lislaam dafa xaraam ci téere yàlla sunu borom daf cee wax ci sunna yeneen bi daf cee wax ci ijmaul umma borom xam-xam yi dañ cee wax sunu borom subhanahu wa taala ci quran suratul maida 42 borom bi mu ngi xas banu israil yahud yi ak nasaraan yi lu tax yàlla xas leen mu ne ñoom akkaaluuna li suxt akkaaluuna suxt mu ne ay lekkkatu neexal lañ ay lekkkatu ger lañ moo tax nga gis yahud yi duñu jub mukk lu tax seeni boroom xam-xam yépp genn wàll gi dañ leen di neexal ñuy lekk looloo tax yàlla xas leen ci quraan bu fekkee ñooñu la yàlla xas te mooy yahud yi kon ñun nag samaa'una lil kadib akkaaluuna suxt yàlla moo ko wax suratul maida aya 42 su yàlla waxee lii ci alquran araamal ko kon ab jullit su doon xiif di mar bay naan potin war naa xam ne lii muy lekk safara dong lay lekk ci biiram jëlee nañ ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci hadisu sawbaan radiyallahu anhu wa ardaahu qaal laana allahu rashi wal murtashi rawahu ahmad yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na yal na yàlla soril yërmande kii neexalaate ak ki koy neexal kon ndeke mbir mi hatta yow mii nga xam ne yenn saay nga ñëw yàkkamti bu yeboo nga xam ne saa yoo yëkkatee ab dërëm ndax yàkkamti bëgg waa ji liggéeyal la nga jox ko ko ci suuf yéen ñaar yéen a yem atte yéen ñaar yéen a yem ndax yonent moo ko wax te yéen ñaar ñëpp waxuma la yéen a yem waaye yonent bi nee na yéen ñaar yal na leen yàlla soril yërmande looloo tax xeet wi alku yërmande moom la ñu yàlla soril lu tax ci biir ci biti ci kaw ba ci suuf ñëpp dañuy lekk ger lan moo tax ngeen gis mbon bari Afrique lu mel ne dëkk yi di Sénégal mbon bari fi parce que président yi dañ leen di ger indil leen projet yu bon ñu def ko lu tax tey góor jigéen di tasaaroo lu tax planning familial tasaaroo lu tax ñàkk yi ngeen di gis ñuy wër ci kër yi di ñàkk nit ñi lu tax dañuy indi milliard ne la am indaale seeni musiba ne la am ba ngeen jël comme dañoo xiif dañoo foqale saa yu ñu jëlee alal ji danañ jëlaale lu bon li indaale xool leen film yi ci télé yi dañuy indi film ne la bismillah xaalis baa ngi nii li ñuy fayee journaliste yi fay liggéey waaye heure sàngam da ñuy tegal film bi moo tax film yu bon yi rek mooy daw musu leen gis Sénégal film bu baax di daw lu ngeen mus ak lu ngeen wax lu ngeen gis mukk film bu baax bu bon rek film bi nga xam ne moo yàq société bi tey moo tax dëkk bi ñëpp yàqu góor ak jigéen kersa amatul jikko yi yàqu yére sax kenn solatu ko léegi ñëpp dum hatta góor ñi lu ko waral mooy ger baaxul société bu mu dugg barke lay dindi da koy màbb kenn dootu fa am yërmande kenn dootul nangoo liggéey koo fekk mu toog mu ngi yaccaaral waaw benn bis dañu amoon soxla police ñu ñëw benn waaye nañu dem leen ci kee mooy defar mbir mi mu ñëw mu ne damaa mar ataaya damaa mar ataaya loolu mooy lan ko boo buggee ataaya dama nga jënd bitig yaa ngi ne mu ne comme du ngeen ma ko jox bàyyi leen mat ba man naan ataaya pare ma doog leen liggéeyal loolu moom mooy xeet wi yëpp tey sunu borom subhanahu wa taala yónni yonent yonent wax ñu wax ju leer ne yàlla soril na yërmande ñii ger ak ñi ñuy ger ñu jëlee ba tey ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne kullu lahmin nabata min suxtin fannaaru awlaa bi bépp alal joo xam ne cosaanam mu ngi bàyyeekoo ci neexal ci ger ci lañ la ci nga liggéey ba tabax kër ci nga liggéey ba jënd oto ci nga yonent bi nee na alal joo jëpp ëllëg safara la ko yàlla di dugal qaalu ya rasulallah wa ma suxt sahaaba yi waroon yonent bi keroog dañoo laaj yonent bi ne ko waaw yonent lan mooy ger qaala ar rishwa fi l hukmi mu ne mooy ngay atte nit ñëw jox la dara pour atte bi ngay atte nga jox ko dëgg gi yonent bi nee na loolu mooy ger te loolu moo fi bari mbokk julit yi sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ñuy wax ci quran mu ne wala taakulu amwalakum baynakum bilbatil wa tudullu biha ila alhukkaami litaakulu fariqan min amwali nnas bil ithmi wa antum taalamun kii alquran la yàlla moo ko wàcce ci ñun sunu borom nu ne bu leen lekk seen alal seen diggante ci neen lan mooy lekk alalu nit ñi ci neen ñi jaay biti xam nañ ko am na ñooñu ñuy tuddee contrôle de prix saa yi ñëwee waxtu wu nekk dañuy ñëw service d'hygiène Sénégal daanaka mën nga ne yëpp ñëppay lekk ger saa yi ñëwee da ngay gis waa ji comme dañ koy bindal këyit moom tamit normalul waaw baal ma jox la dara daal di dibb jox ko defee gars yi ñëw soo bañee ñu jël sa gaz wala ñu jël sa blanche xam ngeen ci dara loolu fun jëm société bu mel noonu naka la société bi di demee kenn du liggéey hatta sax sëriñ bi moom tamit dañ koy neexal gars yi dañuy dem def lu bon am xaalis bu bëri buñ ci jàppee kenn ñu ñëw ne addiya baa ngi nii mu woote téléphone waaw kooku day ndongo loolu ngeen jàpp day sama waay la ci kër gi la bokk ah ñu daal di gisante ci kër gi la bokk ci kër gi la bokk ñu bàyyi ko mu dem kooku est-ce que dina jub fan lay jubee yàlla daf ko araamal bu leen lekk seen alal seen diggante ci neen ngeen ci wootante ci attekaay yi tribunaux yi moo fa fees xoola waa siyaas ñu ngi nekk ci grève de la faim siyaas kañ la woon depuis Abdou Diouf Ablaye Wade Macky Sall tey ay màgget am nañ soixante-dix ans seen alal dañ cee tëdd jaay leen doole bañ leen ko fay kun jëm lu tax parce que ñii àttee saa yi ñu àttee bu ñu bëggee fay ñu neexal leen ñooñu noppi dossiers yi nelawaat ba kañ loolu moo tax réew mi du dem dañuy sonal suñu bopp yàlla li mu wax mooy dëgg yàlla dafa araamal ger mu ne société bu koy def du dem yàlla araamal riba mu ne société bu koy def du dem omar ibnul xataab dañ ko laaj lan mooy ger wa qaala omar rishwatul xaakimi min as-suht mu ne neexal bi ñuy neexal autorité bi ci ger la bokk ndax yow liggéey bi ngay liggéey dañ la fay teg bu weer dee dañ lay jox salaire kon amoo droit kenn ñëw di la keppal ay 1000 francs yi di jël 1000 francs di ko def ci permis nga xam ne da ngay ubbi permis bi gis 1000 francs yi rek mel na kuy bind bindulu daal di jël 1000 francs yi def sa poos daal di joxe waaw mu laa dem fu ñu jëm kenn du jub bu fekkee ne loolu rek lañ koy réglé xaalis ku am doole ku ne da nga am xaalis doo neex nga def kenn du jub loolu la nu yàlla dina too mbokk julit yi waqad haka ibnu raslan fi sarhi sunan an hasan wa said ibnu jubayrin annahuma fassara qawlu llahi taala akkaaluna li suht ar rishwa buñ demee ci sarhu sunan danañ fa fekk Hasan ak Saïd ibnu Jubayr ñu ne ñoom ñaar ba ñuy firi waxu yàlla subhanahu wa taala bi mu wax ne banu Israil ay lekkatu ger lañ baat boobu yàlla wax ne ak kaaluna li suxt ñoom ñaar niñ ko firee mooy ar rishwa mooy neexal mooy ger sunu borom subhanahu wa taala araamal ko borom xam-xam yi ne wal murtashi fasiq wal fasiq la yajuzu hukmuhu ñu ne lekk katu gor kàccoor la saay saay la te kàccoor ak saay-saay suñu attee seen atte daganul kon seen tribunal yi fu ngeen jëm lekkkatu gor kàccoor la kàccoor ak saay-saay seen atte islam wéralu ko ñu ne daganul benn yoon dafa xaraam ñoom ñaar yonente alayhi salaatu wassalaam ci hadisu abi humayd as-saaidi qaala istamala rajulun rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam min al asdi yuqaalu lahu ibnu latba ala sadaqa falamma qadima qaala hada lakum wa hada ahda lii benn waay bu yonent jël di ko liggéeyloo ci sarax si mu nekk fay dajale sarax si yonent di ko yónni mu koy jëli dëkk ak dëkk benn bis mu dem jëli sarax si mu ñëw mu xaaj mbir yi ñaar mu ne lii yéena ko moom lii maa ko moom dañ ma ko may sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam munoon naa wax ak moom foofu munoon na ne gars yi jàpp leen ko dóor leen ko déedéet yonent melul noonu yonent yàlla moo ko yónni mu nekk jàngalekat bu wér ne yàllaa ko yónni moo tax mu réussir loolu moo tax li mu woote cent vingt quatre mille sahaaba ñëpp topp ci ginnaawam amul ku mu mus a dóor amul ku mu mus a xas amul ku ma mus a pes yàlla moo ko seedeel loolu walaw kunta fazzan galida alqalb lan faddu min hawlik allahu akbar fa bi fa bima rahmatin min allahi linta lahum wallahi bu doon du yàlla moo nooyal sa xol kon duñ la topp waaye boo nekkoon ku ñàng ku tar di dóore di xase kon gaa yi duñ la wër yonent dafa bàyyi waa ji rek waa ji ji buub li mu indi séddale ko ñaar jox lii gaa yi jox nent bi daal di jël lii tokki yonent dem kaw minbar daan ne fa qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa qaal ala minbarihi fa hamida allah wa asna alayhi wa qaal ma baalu aamilin ab'asuhu ana rasulullah fa yaqulu hadha lakum wa hadha ahda li afala qaada fi bayti abihi aw fi bayti ummihi hatta yanzur ayuhda ilayhi shay am la lan moo dal nit ñi man yonent ma yónni nit mu ñëw li ma koy yónni mu xaaj ko naan lii maa ko moom lii dañ ma koo may ndax waa jooju bu toogoon kër baayam wala kër ndeyam danañ ko may dara gis nga ndeke même fi nga nekk di liggéey buñ la fa joxee cadeau société bee ko moom liggéeykaay bi moo ko moom yow moo moo ko waaye da ngay gis waa joo xam ne day dem fii ñëwaat ñu jox nangam nangam mu daal ne lii maa ko moom yonent bi nee na moo moo ko kon ndeke xeet wi moo ko moom xoolal président day gàddu xaalis di maye lu ko neex yéen a ngi fàttaliku malet ya malet waa joo xam dañ koo may xaalis ba mu tiit dem di ko wone ndax lii ndax dañ loolu du may ger la nañ ko wax suñ ko waxul du nu faju du nu wér foog ñu bàyyi lekk ger pour société bi barke am ci diina ji yàlla nangu ko nit ñaa ngi ni dañuy ñaan ba sonn julli ba sonn yàlla du nu may parce que gémmiñ ñi dañuy lekk ger dañuy lekk riba ixwatal iman yonente ne waa ji boo toogoon sa kër ndey maa nga toog sa kër baay est-ce que di nga am lii dinañ la ko jox lan moo tax ñu jox la ko mooy ñun jullit ñi ñoo la yónni kon soo ñëwaatee ne lépp dañ ma koo jox mi ngi nii ñu seet nan la ñuy def loolu mooy jub yonente alayhi salaatu wasalaam mu ne wallazi nafsu muhammadin bi yadihi laa yanaalu ahadukum minha shay illa jaa yawma alqiyamati yahmiluhu ala unuqih sallallahu alayhi yonente bi nee na ku ñu ger ba nga jël ko wallahi yawmal qiyam di nga koy ñëw yenu mu ne bu doon gëléem la di nga koy yenu muy naññ bu doon nag la di nga koy yenu muy naññ bu doon mbaam la di nga koy yenu muy ŋaax bu doon xar la di nga koy yenu muy mbee ku yenu nag yawmal qiyam foo jëm ak moom wa man xalla yaati bi ma xalla yawmal qiyama loolu la nu alquran wax képp ku wuruj sàcc يوم القيام دينكو ينو اندلكو يلا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخوة الإيمان هذا أثر الرشوة السيء في إفساد الضمائر والذمة bu ñu buggee xam ger ni muy yàqee ak ni muy màbbee ak ni muy tasaaree danañ ko tënk ci ñeenti tomb bu ci njëkk mooy ger tufsidul qulub xol yi lay yàq kenn dootul am xol bu baax gis nga lu waay yàkkamti ñëw këyitam suba da ngay ñëw nga fekk fa benn waay boo xam ne xol bi comme xeer waaw nga ñëw mu ne wàcc na demal ba suba demal ba ginnaaw suba déedéet sëñ bi déedéet même bu doon sax même bu doon hôpital nga ñëw feebar nga gis koo xam ne ñu ngi ko teg ci balankaar deret baa ngi di sotteeku nga gis waa ji ne la wàcc nañu boo leen ne déedéet kii dugal sa loxo sa poos ñu ne waa xaaral ñu ñëw ay na naanu xol yee yàqu xol yi ñoo dee tufsidul qulub wa tuujibu sahna ñaareel bi muy jur mooy day tax bañante gis nga ki la bañ a taxaw ñëw foog nga neexal ko te amoo loo ko neexal noo koy def da nga koy bëgg da nga koy bañ day yàq xol yi tax xol yi dee nit ñi bañante société bi kenn du bëgg moroomam xoolal nit ñi tey ak police lu tax parce que guerre moo fa bari xoolal nit ñi ak douane yi xoolal nit ñi ak gendarme yi doo doo ci bëgg kenn même bu doon sa mbokk la sax doo ko bëgg ndax xol yi ñoo dee bi xol yi deewee yàlla def ci mbañante lu tax ndax ger moo ko waral ñaareel mooy tuzidu fi zulm wa tarfau rasul jawri wal xayf ger mbokk yi day yokk tooñ tooñaange ci société bureau boo dem ñu ne duñ la nangoo liggéeyal police boo dugg gendarmerie boo dugg poste douane boo wàcc duñu nangoo jaaral mbir mi yoon lu muy war mooy tooñ mooy yokk tooñ mooy yokk dañuy tooñ nit ñi rek ba kañ ba kañ xoolal ñi dawal oto virage boo tourné joxe téeméer bu fekkente ne fukki alkaati ñu ngi ran ci ci benn yoon koo ci rombu téeméer ñooñu est ce que di nga leen bëgg xoolal tooñaange googu ñu lay tooñ tuzidu zulm wa tarfa rasul jawr dafay ndëng te lay yokk lu ngeen gis léegi société bi ndëng te gi dafa gën a bëri foo tourné ñu ngi koy wax agression nangam nangam da ngay gis ku rey nit ñu dugal la kaso deux mois nga génn di dox moo tax léegi ku dugg kaso booy génn da nga naan sama place bu ko kenn laal maa ngi ñëwaat parce que kenn du la fa def dara amul luva bu sévère ah da ngay gis yu ñàkk fayda ñu ciy tëj nit ñi yi nga xam ne moom la ñu war a tëj nit ñu bàyyi nit ñi di tambaambalu ñi sàcc alalu réew mi yëpp kenn du leen tëj ñu ngi fi di lambar lambar yi ñu ngi ci tëj tuuti sax benn at ñaari at ñu daal leen di génne ñu dem te ci ay milliards lañ tëdd milliards milliards ñaata at la ci nit di dund moo ak njabootam bis bu nekk muy dépassé ñaata cinq cent mille wala te du jeex ñaata ay nit tëdd ci ci réew mi dañuy sonal suñu bopp ixwatal iman ger day def encore tut mi suma amilu adalata fil umma day tax maandu te dañ ci xeet bi maandu te kenn du maandu ndax da ngay gis sa chef maanduwul doo maandu ki la jiitee ngi nii nga gis ko muy lekk di def lu bon di signé ay kayit yu dox yu wérul wala lu mu waroon jàpp mu bàyyi mu dem parce que am na lu ñu ko jox mu yóbbu mu def ci poosam wala li mu waroon jàpp police baa ngi nii lan ngeen dégg police du dorog ba ñu dàq ay nit dorog boo xam dañ ko waroon jàpp di ko lakk nit ñi jàpp ko di ko delloowaat ci nit ñi du loolu moo indi police problème léegi nag yow nga gis loolu sa chef di ko def ëllëg nga jàpp drog ngay def gars yi comme dañ koy delloo ma delloo ko ci nit ñi rek ma jaayaat ko man loolu ngay def looloo tax moom ger dafay tax maandu te du am kenn du maandu koo wax mu ne la diw daf koy def dama koy def suñ chef daf koy def daf koy def gisoo da ngay gis kuy def lu bon nga ne ko waa yow lii nag mu ne la sëriñ bi daf koy def man dama koy def parce que sëriñ bi da koy def mus naa gis ku takkalam ma nuyu ko ñuy waxtaan ma ne ko cheikh bi lam dafa xaraam de mu ne ma sëriñ diw daf koy def ma ne ko da ngaa juum borom xam-xam yi nee nañ bu fekkoon ne xam-xam dina tax ragal yàlla law kaana al ilmu min duni tuqaa sarafan la kaana xayru xalqillah iblis fekkoon ne ku am xam-xam ragal yàlla kon iblis ragal yàlla ñëpp iblis moo leen raw moo fi njëkk moo leen fi njëkk yéen ñëpp lépp fekkee na ko xam na ko ñëpp moo leen raw waaye ragalul yàlla mu ne ma léegi loo bëgg a wax ma ne ko boroom xam-xam yee wax loolu bu fekkoon ne ku am xam-xam ragal yàlla kon iblis ragal yàlla kon sëriñ buy takkalam wala jabaram di xeesal wala jabaram di meesu taxul mu dagal maandu te lay dindi baaxul ixwatal iman li gën a bon li muy def nag moom ger tumitu damair ndeysaan damir yëpp lay rey tey ni moom mooy fi ñu toll nii tumitu damair damir yëpp a dee bakkan yee dee yëpp da ngay dégg ñu ne Sénégal de yërmande fi jeex dëgg la yërmande fi jeex parce que damir yi ñoo dee kenn amatul yërmande ñeme ngaa romb léegi fii nekk fekk nit ku dee nit ku ñu jam deretam di sotteeku nga romb ko loolu ngay gis hôpitaux yi ambulance jël nit ci tali bi deret ji walangaan ñu yegg si Abbas Ndaw ñu ne la yóbbul Fann ñu yegg si Fann ñu ne la yóbbul nga yegg si principal ñu ne la yóbbul dante nga yóbbu dante ñun noonu la waa ji ñu koy wërale di ko wërale ba waa ji dee kenn du ko taxaw parce que damir yi ñoo dee yërmande la yàlla raf u yëkkati ko ci xol yi ixwatal iman wa tufawidu daaimul mujtama suñ demee ba boobu nag ba société bi yegg fii mooy bu yeboo ñu xam ne egg nañu terminus ndimbalu yàlla ak yërmandeem dong moonu wala warlu nañu yëg ne ger dafa haram ci diine ci quran ci ijma ci sunna yonente alayhi salaatu wasalaam yonent bi nee na yal na yàlla soril yërmande lekkkatu ger ak ki koy ger allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahumma ya muthabitu alqulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة نصوحا وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله